tay dañu ñëw rek euh, répondre ci wu président Macky Sall bi nga xamné dafa lancer appel pour que doomu Sénégal yépp taxaw ku nekk lo man ak fo lo ci man nga indi pour que ñu xeex li nga xamné moy fièvre bu doy war bi nga xamné dugg na ci réew mi donc lepp lu ñuy def rek dañ koy def pour pour top ci ginnaw président ñun ñëpp ñuy ñaan population bi nañu takku doon ben say top ci ginnaw président lu way mëna indi ci walu ndimbal pour ñu jakkalok fièvre bi ñu def ko waye dañu ñëw tamit pour répondre ci appelu sur population population Nianing nga que nous dañ fay gis coronavirus nous avons a bi nag fële la ci résidence ya faire nañu choses. rek dañ taxaw nous euh, mais conseil municipal très rapidement dajale ay bagages yu bari nous ci alcool gel de javel lu produits des qui masques poste de santé fas yéene ko yóbbu ci yeneen dix postes de santé yi nga xam ne ñoom ñoo ci biir commune bi tey ji dañoo bëgg def tournée pour que poste de santé yëpp ñu équiper leen pour que véritablement personnel de santé bi ñooy jàppale leen ci loolu donc je crois que rôle la bi dañ ko def ci turu conseil municipal bi mais ñoo ngi woo képp kuy sénégalais ku mën a def rek nga def ci parce que lii ñu war a jàkkaar lool lii muy feebar bi nekkul lu ndaw donc buñ ko xeeb nañu taxaw temb ñun ñëpp lu waaye am ci doole nga indi ko pour que véritablement ñu ko ñu ko daan waaw dañuy Euh, euh, le président Macky Sall parce que nekkuloon décision bu yomb mais jël na tout son courage toute sa responsabilité jël décision majeure muy lepp luy dajé nañ ko arrêté muy ngenté muy ciet muy rencontre muy ay jang lepp fop fo xamné ne mbolo na fay dajé rek nañ ko moytu té bu ko kenn organiser ñun ñep nañ ko ci jappalé ko jappalé ko ci jappalé sun bop la ndax après tout menace bi ñun ñi la gëna menacer donc je crois que lolu ma ngi wax wa Nianing di wax wa commune malikunda di wax wa Mbour ak wa Sénégal yëpp ñu jàppale ci président moy vraiment baña def ay dajé waye tamit nit ñi jaxaso bi ñu wañiko ko bi buñ ko mëne bàyyi ñu bayiko ko véritablement observer dal mesure d'hygiène yi nga xamné personnel de santé bi dénk nañ ko ñun ñëpp ñu tënku ci. D'abord, euh, je le dis, bon, monsieur le maire est un frère, est un ami, est un tout à moi. Quand il m'a fait part de cela hier, j'étais très content. Parce que c'est ça que nous, on attendait quand même en tant que responsable. Et comme il a vraiment eu l'opportunité de le faire rapidement, donc ça peut soulager même euh, nous en tant que technicien de santé sur le côté moral et psychologique. Maintenant, par rapport à certaines euh, recommandations, je ne serai pas tellement long par rapport à cela, parce que nous, euh, ce qui nous intéresse, c'est surtout au point de vue, disons, comportement. Le changement de comportement, ce n'est pas facile. Et que nous, ce changement de comportement, euh, d'après les directives de l'OMS et, disons, le ministre de la Santé, on peut le faire passer par rapport au relais, au Bayanouga, au chef du village, au chef de quartier, au chef religieux et coutumier. Donc ce changement de comportement, c'est ça qui m'intéresse par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, ce que le monsieur le maire a apporté, c'est pour protéger les techniciens. Et le président de la République l'a précisé hier. Effectivement, tout ce que les autres vont faire, c'est par la protection même des techniciens. Parce qu'on ne souhaite pas, mais si ce cas-là aujourd'hui était reçu par le service des postes santé, c'est fini. Le poste serait fermé. Vous avez suivi l'information à tout bas. En ce moment, ce serait un poste tout de suite réservé uniquement aux patients du coronavirus. Vous voyez ce que ça fait comme une prise de décision. Donc, euh, les techniciens maintenant sont appelés à se protéger par rapport à cela, mais aussi à commencer par des changements de comportement en mettant les bassines chaque matin qui doit durer 24 heures et que doit être géré par le personnel. D'habitude, c'est la sage-femme qui va gérer ça parce qu'aujourd'hui, c'est un congé administratif c'est Sassoum qui est mon remplaçant. Mais chaque matin, il faut que les gens qui sont là veillent à cela. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas facile. Nous avons connu des épidémies, on a placé des bassines, mais tu vois des gens qui viennent, qui traversent. Parfois même, tu peux réagir. Bon, ils ont un comportement bizarre. Et ça aussi, on va faire appel à l'autorité qui est là, le maire, quand même, pour que vraiment, prochainement aussi, qu'il commence à lancer à ce message. Parce que faire respecter les gens, le changement de comportement, ce n'est pas facile. Au niveau des mosquées, les gens qui vont aller prier, crier des bassines, même chose, que les gens plongent les mains. Au niveau de l'église, j'ai été là-bas ce matin, j'ai passé, effectivement, ils ont eu les bassines sur place. Donc, ce sont des comportements que nous, nous attendons de la population, mais vraiment pas autre chose. Maintenant, je dis chaque fois à les gens, Dieu est là partout, hein. Dieu est là, il est esprit il plante sur tous les airs. Donc, faut pas, on va se focaliser dans nos prières, mais aussi se focaliser surtout par nos comportements. Si on pense que euh, euh, la prière peut éloigner le virus, la prière peut éloigner le virus en tant que croyant, mais il ne peut pas tuer le virus. C'est par rapport à nos comportement que le virus sera tué. De ce fait, moi, vraiment, j'aimerais par rapport à cela, euh, c'est ce message-là sur le plan technique, et que je, vraiment, je termine en, renouvelant encore mes remerciements euh, au niveau au euh, à Monsieur le maire Maguette. Que tes actions aussi ne se limitent pas ici. C'est vrai que nous, ce qu'on souhaite, que l'infection s'arrête mhm. tout de suite. Mais aussi, il ne faut pas qu'on qu se trompe. Hein. Le président l'a dit hier, ils n'ont pas marché les mois. Hein. Tout ce qui nous a amené par rapport à cela, c'est les, les erreurs que les autres pays ont fait. Le Japon, ils ont essayé de cacher les choses sur le plan comportementale. Et finalement, ça a été une explosion de bombes. Et que vraiment, il ne faudrait pas que maintenant aussi que les gens se voient la face. Il faudrait qu'on se dise la réalité, le fond du problème. Comme ça, au moins chacun saura que le danger est là et qu'il n'épargne personne. Appel moi la population bi rek mooy di leen di ñaan ñun ñu dal ànd seeni sago te bañ a tiit ndax Nous it bokk na ci ndax bu nekkee dañoo tiit mën nañoo def loo xam ne yoon santaane ko ma bëgg nag comme lii am na ñu mën a dal ñun ñëpp xam na ne mbir mi dal na ci dëkk bi waaye nag autorité yaa ngi fii pour ñu jàppale pour ñu mën koo saafara ndax it ku gis lu maire indi tey xam nga ne kon moom réaction moom nekk na réaction boo xam ne gaaw na ndax dëmb la am tey mu indi lii kon yaakaar naa bu ñu toppee directive yi ñu wax nit ñi toppee ko ni ñu ko waxee yàlla mën na am affaire bi am saafara. man naa wax ne man commencé naa ko ndax it dinaa oo sama représentant yi nekk ci quartier yëpp waxtaan ak ñoom boo gisee ñu oog bañeen gox yi aussi pour mën a waxtaan ak ñoom pour loolu mën a am ñu mën a waxtaan ak nit ñi par rapport ak mesures yi xam ne moom la président jël incha allah ñun def lépp pour mën koo respecter bu ko jaree sax ñu dem ci yoon parce que on a une brigade ici ñu dem fa sax pour nit ñi mën a respecter loolu parce que ñu ko defee pour aar ci ñoo tax mais ñun defuñu ko pour suñu bëgg-bëgg parce que li nous sommes dans un village à risque il faut le reconnaître parce que xam ñenn ñi xam na mom bari na ay ay gan comme ni ma ko waxee dëmb te gan yoy fu nek la ñu jógee ñun mënu ñu la contrôler mais nak mënu mënuñoo fexé ba kep ku fi dugg nga indi leneen lo xamné mom defo dafoo safaanoog leneen ñu mëna fexé ba signaler la loolu laay ñaan population yi buñ ci am benn kersa y a des numéros verts kuñ wax wax buñ ñëwee ci man